الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له التواب الرحيم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى يقول جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون mbokk yi ginnaaw bi ñu jégaloo suñu borom subhanahu wa taala moom mi nga xamante ni moom dong mooy kiy jéggaley bàkkaar di seede ne amul kenn ku nu war a jaamu ci dëgg ku dul moom subhanahu wa taala bokkaale ñeeru ko di seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la yàlla moo ko yónni mu yërmande xeet bi yàlla ñu ci yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp njubu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ba keroog bis penc di taxaw ñuy dénk suñu bopp di leen dénk dëgg dëgg ragal yàlla te ñuy fuglu suñu borom subhanahu wa taala di ko bàyyi xel ci lu feeñ ak lu nëbbu yàlla ñu koy dénk ci alquraanul karim di ñu wax ni ay yéen ñi gëm na ngeen ma ragal dëgg-dëgg ragal te rekk bu leen dellu ci man lu dul da ngeen doon ay dëgg-dëgg jullit mbokk yi suñu ko béy tey ñu ngi koy fas yéene amal ci mawdu bi ñuy wax alxasu ala tawba mooy soññ ci tuub dellu suñu borom subhanahu wa taala ginnaaw bi ñu xamee ne yàlla suñu borom subhanahu wa taala dañoo bind wàccee ñu fii ci kaw suuf ngir benn objectif mooy ñu jaamu ko rek te bañ kaa bokkaale kenn wa ma xalaqtul jinna wal ins illa li yaabudun binduwuma nit ak jinne lu dul rek ñu jaamu ma te fi yàlla waajalee jaam ñi ngir ñu ko fay jaamu fii la ci kaw suuf ginnaaw fii bàmmeel rek lay doon ginnaaw bàmmeel ñu dekkil ñu kenn ku nekk ñu jox la sa téere jëf ñu yàlla def ñu aji texe yi yàlla ñu ci yàlla boole ñoom de fil jannati xaalidina fiiha aljana la ñuy sax waaye képp ku sàgganoon it ba ëllëg buñ lay jox sa téere jëf nga bokk ci fujjaar yi ñu perte ñi kooku sa maswaa sa dëkkuwaay mooy safara yàlla ñu ci yàlla musal moo tax ci yërmandey borom bi subhanahu wa taala mu tijjil nu bunt bii nga xamante ni li feeg jàmbaa ngi fii ci kaw suuf di ànd ak sagoom yàlla tijjil na la buntu tuub ngir nga dellu jëm si moom yàlla di ñu wax ci alquran ni وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا asamaan ak suuf sii de sàkkuma ko rek mu nekk ab hasard mu ne dalika dannu alladina kafaru loolu njort yi ñi nga xamante ni ñooy ñi weddi yàlla lañ ñoom ñoo jàpp ni moom fii moom lépp hasard la fi rek boo jeex boo deeyee jeex na yàlla ni déedéet dalika dannu alladina kafaru fa waylun lilladina kafaru min annaar ñi njort loolu ëllëg yowm alqiyaama maa ngi leen di xaar ci safara suñuy wax ca xurwa yàlla ñu ci yàlla musal yàlla di wax nag am najal alladina aamanu wa amilu lsalihaati kalmufsidina fi l ard am najalu lmuttaqina kalfujjar ndax da ngeen foog ni wàccee gëm leen wàccee fii ci kaw suuf dinaa jël ni ma ragaloon doon góorgóorlu di jaamu yàlla di leen yemalee ñi nga xamante ni ñoom dañoo jàppoon ni fii hasard la rek désordre lañ fiy sëmi kalla yàlla mun di def loolu de wa ma rabbuka bi dallamin lil abid yàlla du tooñ kenn ëllëg yawmal qiyaam ku nekk la nga jëf loolu lay fay moo tax yàlla di junj buntu tuub mbokk yi at tawbatu mooy ar rujuu wal inaaba mooy delluwaat sa borom subhanahu wa taala moom kese mi nga xamante ne mooy ki mën a jéggale bàkkaar du keneen mu wax ci alquran mu ne xeemiim tanzilul kitaabi min allahi al aziz al alim alquran gii mi ngi bàyyi koo ci borom bi subhanahu wa taala mim borom teddaange yàlla mi nga xamante ne mooy ki xam lépp mu ne xaafiri zanbi yàlla muy jéggale bàkkaar wa qaabili taw bi tey nangu tuub kon yàlla mooy jéggale bàkkaar mooy nangu tuub mu teg si ne shadidul qita shadidul iqaabi di taw bi yàlla mi tari mbugal kon yàlla xamle na ni moom ñi koy tooñ fii ubbil na leen buntu tuub waaye ñu féttërlu jàpp ne nag moom boo deewee rek jeex na nee na ëllëg bu ñëwee mu ngi leen bàyyi mbugal mu tar yàlla ñu ci yàlla musal mu bokk ci charte yi nga xam ne nag mooy tax borom subhanahu wa taala jéggal ñu suñuy bàkkaar yàlla moo ko wax ci alquran moom mu ni wa inni la gafaar man yàlla damay jéggale bàkkaar man may kiy jéggale bàkkaar waaye ñeel kan mu ne liman taaba ñeel ki nga xamante ne daa tuub nag ki tuub dellu si ci man kooku lay jéggal wa amana mu gëm gëm ni man may kiy jéggale bàkkaar wa amila salihan ginnaaw gi nag muy jëf jëf ju baax tumma tada tegu ci yoonu njub kii mooy ki nga xamante ne moom lay jéggal yàlla na ci yàlla boole بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله قابل المتاب الرحيم بمن عاد وأناب والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين mbokki dafa bokk ci sàppi tuub ak ponk yi nga xamante ni mooy ponki tuub bi ci jëkk mooy al iqlaau an danb wa tarkuhu bilkulliya wa mujanabatuhu wa tibaa anhu wa an asbaabihi mu dafa bokk ci li nga xamante ne mooy fonki tuub nga bañ a jege lenn luy jur bàkkaar mooy bi ci jiitu nga bañ a jege lenn loo xamante ni day jur bàkkaar taarikan li solaa bu fekkente ne da nga nekkoon kuy sàggane julli nee na nga daw di julli rawatina di ko julli ci waxtu wa ak ci mbooloo ma bu dee nii da nga nekkoon ku bañ di génnee zakat nee na nga daw di génnee zakat te xam ne la ngay génne sa zakat moomatoo ko bokkutut si alal nga jox ko ñi nga xamante ni ñoo ko moom bu dee da nga nekkoon koo xamante ni dafa sàgganoon ci ay waajuram na nga daw gaaw fonk say wayjur tarbiyu leen jaamu yàlla ci ñoom bu fekkee da nga nekkoon koo xamee ni da ngay jëfandikoo lépp luy muur am xel lépp luy muur am xel moo xam lu ñuy fóon wala lu ñuy naan wala lu ñuy dox wala anam bu mu mën a doon te muy muur am xel nga sori ko bu fekkoon ni da nga bokkoon ci ñi nga xamee ni dañuy def ay caaxaan rek. topp ci mboosoor gi rek nee na nanga ko moytandiku yii ma wax yépp luy jur bàkkaar la rawatina di lekk lii di alalu riba ndax ñii lekk alalu riba ëllëg yawmal qiyaamati yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na riba bi ñu daan lekk mooy tuuj seen biir yi ba seen tànk yi dootul laal ci suuf seen biir bi féete suuf tuuj seen yaram bi ndax riba bi ñu daan lekk kon yii nga xamante ne day jur bàkkaar yépp nga sori ko loolu mooy li njëkk ci ponki tuub bi ci topp nag mooy an nadamu ala ma faata min maasiyati rabbi jalla wa ala boo defee bàkkaar ndax doomu aadama nga matuloo nee na na nga rëccu nag la nga def abdullah ibnu mas'ud de dafa nettali ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na an nadamu mooy ak tawba nee na rëccu rek tuub la jëmmi rëccu rek tuub la ndax xam nga li nga def nii yàlla da koy tere kon bàyyi rëccu gi nga rëccu ci def gi nga ko def rek nee na loolu ak tuub la mu bokk ba tey ci fonk yi tax yàlla suñu borom jéggal ñu suñu bakkaar mooy ngay dogu nag al azmu ala an la yaawuda ilayhi abada mooy nga dogu nag ni li ma rëccu dootuma ko defati ilal abad ndax bi ñu laajee Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ni ko lan mooy at tawbatu nasuux lan mooy tuub bu sell daf ne at tawbatu nasuux mooy an yatuuba rajulu min amali sayyi summa la yamudu ilayhi abada nee na tuub bu sell mooy ki jëf bàkkaar bi mooy ñaawteef bi mooy da koy rëccu ba pare ni lii de dootuma ko defati ilal abad nee na loolu mooy at tawbatu nasuux moo tax yàlla suñu borom wax ni yaa ayuha alladina amanu tuubu ila allahi tawbatan nasuuxa ay yéen ñi gëm na ngeen tuub dellu ci seen borom tuub gu sell kon tuub gu sell moom mooy la nga rëccu nga fas yéene dootu ko defati ba ilaa yawmi diin te ñu xam ne nag dafa bokk ci maqaasidu sheytaan iblis laanatullahi alayhi dafa bokk ci ay jubluwaay iblis mooy da la tàyyel loo ci tuub bu dee jeune nga danaan la ah waaye garaawul waay déglul musique ba mu neex la xanaa gisoo gentleman bi fi nekkoon léegi mu ngi nii yow ku la wax ni yow âge bi gentleman bi nekkoon ndax moom dina ko romb yow mi di nga ko romb xamoon ndax bëccëg sax guddi dina la fekk kon iblis moo lay tayelloo ci di la tuubloo di la delluloo ci sa borom subhanahu wa taala moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni inna allaha yaqbalu tawbata al abd ma lam yugarrir yàlla moom tijji na buntu tuubi ci ñëpp nag nee na ba mu des ki nga xamante ne dem na ba toll ci sukuraat kooku moom yàlla soxlaatul sa tuub yàlla ci yàlla musal mu bokk nag ba tey bokkee ci lii kii tuub li ko yàlla di bégalee jaam bi dafa war a ràññeetle nga ni da ngaa bëgg yàlla ak yàlla bëgg la yàlla ne daa bëgg yàlla nee na ñi muy bëgg moom mooy ñi nga xamante ne ñooy jëfe ay farataam li mu gàll sa kaw nga koy jëfe ba pare da ci teg nag say naafi la yàlla wax na ci xadisu xusi nee na sama jaam bi du def lu ma ko sant muy ay waajibaat ci moom di def ay naafila loolu dama kaa bëgg man yàlla mu bokk nag ci gaay yi yàlla di bëgg ki nga xamante ni day tuub ndax yàlla mu ne inna allaha yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahirin man yàlla dama bëgg ñi nga xamante ni ñoom ñiy tuub ak ñi nga xamante ni dañuy laab yàlla yàlla boole si ñooñu rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا اللهم وفقنا للتوبة النصوح قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله